Assane Samb ñu ngi lay nuyu. waaw maa analyste politique nga yaay euh, directeur de publication aussi bu Rewmi Quotidien alors ñu bëggoon waxtaan ak yow en tant que analyste politique euh, surtout ci situation bi nekk tey Guinée Bissau ayu bés bi xëy na am na lu bari lu ci soppeeku ndax ñu bari fogoon nañ ni ñaari gouvernement ñoo fay am waaye mhm. ki nekkoon président par intérim di Cipriano Kassama daal dinay euh, génn ci loolu est-ce que tey mun nañu jàpp ni Ambalo dina mun a jiite réew moomu ci dal. waaw niru na ko niru na ko ndax euh, bu Gassama bàyyee dafay tekki ni xëy na pression yi wala médiation yi mu ngi commencé am résultat euh, effectivement euh, lépp rek problème mu PAGC la mooy parti boobu nga xam ni moo fi nekkoon depuis indépendance bi yor réew mi. te ren ñu perte élection te mosuñu woon perte élection ki leen jiite xëy na sax doomu màgget mooy Simango Domingo Pereira Domingo Simões Pereira du màggetul noonu mais nag dafa jiite ay mag dafa jiite ay kilifa ñu euh, vétéran yi bi euh, xëy na yenn am d'affaires yi nañ ko wax rek euh, yenn trafiquants yi nekk biir PAGC ñàgg yor réew ma affaiblir état bi di doxal seeni i business ñooñu ñoo bëggul umbaaloo toog te nag malheureusement ren dañu perte élection comme dañu perte élection rek dañu war a dem mais dañu dem man bindoon naa ko ay yoon ci réew mi ni euh, Domingo ak waa PAGC duñu mos a nangu def ci euh, lu mën di def pour jaxase régime bi rek di leen nekk di ko def te loolu liggéey boobu ci la ñu taxaw ñoom di ci def tout le temps di déstabiliser woon rek naan wut ak gouvernement di ko jéem a teg pour déstabiliser Umbalo mais yaakaar naa seen bu ko bàyyi parce que CEDEAO moom moo fa ne di liggéey CEDEAO sax dafa sonn Guinée Bissau parce que trouvam ñoom fa téye depuis des années depuis deux mille quinze ñu ngi euh, teg leen fa euh, mu metti lool ci CEDEAO euh, tey du ñu nangu effectivement benn parti jóge fële di jaxasee li nga xamante mooy élection yi fa amante élection yi nekk élection yi jaar yoon ñëpp constaté ko donc CEDEAO moo wane fermeté fermeté boobu nag daf koy def ci négocier ak ay pression ñaar yooyu yëpp lay utiliser ba nga xamante ni xëy na c' est waa PAGC doole ñu waroon mën am pour mën a jaxase pouvoir umbaalo euh, du dumba loolu daal mooy situation bi effectivement mais taxul nag ñu jàpp ni euh, euh, daal dina fa am continuer yaakaar naa daal daal li may jàpp toujours rek mooy Domingo Chimèse Pereira ak PAGC toujours rek dañuy pexe boo xamante ne dañuy jéem a réew mi. Euh, ah. Sufyano mi tekki ndombal tànkam euh, lan nga jàpp ne moo nekk ci ginnaaw moom nee na ay pression la ak euh, yu ni mel mais dëgg-dëgg ci sa xalaat lan moo ko waral ndax mënuñu xaar foofu xëy na PAIGC nekk di def naxe mbaay di waajal xëy na leneen ba tax ñu sëlëmale ñenn ñi démission wu Sufyano bi. waaw li wër mooy ay médiation am na. ay médiation moom moom day am tout le temps maanaam ay nit yoo xam dañ leen di yëkkati pour ñuy waxtaan euh, di dox di dox ci dox ay tànki jàmm ci biir mais aussi ay pression am na parce que xam nga Guinée Bissau dafa situation bu doy waar boo xamante ni euh, tout le temps euh, dañ daan rey ay nit di faat ay hommes politiques Nino Vieira gis nga niñ ko faate ak ñeneen ak ñeneen Tagnonoé général Tagnonoé et cetera donc yooyu boo xoolee situation bi Euh, da ngay jàpp rek xam ne am na ay pression aussi am na lu ñuy ragal euh, parce que bu ñu continuer di def nii ñoom waa PAGC bis bu nga xamante ni am na nit ñi ci faatu yu métti waa cour pénale internationale dinañ jóg boo moytul topp leen te boo moytul dinañ leen dinañ leen devant la cour wala ñu andi leen yeneen problème ay sanctions Nations Unies ñoom personnalité yooyu donc loolu lu ñuy ragal la parce que actuellement doo gisee personnalité yi di ñu def yu bëri ci wàllu politique actuellement parce que dañuy ragal Euh, effectivement euh, ay sanctions yi euh, Nations Unies ak sanctions Cour pénale internationale comme ni ñu ko defee au niveau de la République centrafricaine yenn personnalités yi effectivement ni ñu leen ni ñu leen épinglé donc loolu mën nañu ko ragal effectivement mais parce que menaces yooyu moo am parce que monde bi dafa changé CEDEAO nangootul coup d'état so CEDEAO ak coup d'état bi lu mu mën di doon coup d'état institutionnel wala coup d'état force CEDEAO nangootul coup d'état te boo boo boo ko boo téye waa CEDEAO waa Nations Unies dañuy taxaw parce que CEDEAO Nations Unies day nekk tout temps ci wetu CEDEAO pour jàppale ko ci loolu te bu am boo dëgëree bopp mën nañu la traîner devant la Cour pénale internationale. alors euh, PAIGC euh, moom li xew ni yëpp euh, coup d'état la ko jàppee dem aussi ba xëy na tuumaal sax ku mel ni président Macky Sall ne ingérence la ñu def ndax yaakaar nga ni xëy na CEDEAO dina leen mënal dara. waaw CEDEAO moom moo fa nekk yore militaire teg leen fa. ba pare di doxal euh, di def médiation ci réew ma di garantir élection ya moo tax nit ñi reyante wuñu boobu léegi parce que bu du loolu boo leen bàyyi woon ñu reyante yàgg ñu reyante seen biir kon CEDEAO du bàyyi euh, situation bi comme ni ko waxee sànq euh, di gën a garaaw Trao Domingo Semacer Pereira ak PAGC ñoom ñoo fa nekk comme ni ko waxee sànq mosuñu perte élection bi yoon nag parti yi duñ ko nangu mooy li amoon Gambie rek boo seetloo Euh, jàmmee bu ci CEDEAO taxaw woon fermement am fulla fayda bu jàmmee du musu bouger mètre mais nag euh, CEDEAO dafa wane détermination euh, Sénégal ak ak Nigéria jiite ko doxalu après jàmme xam ni ñii caaxaanuñu mu def même chose nag en Guinée-Bissau tant que ñu ngi yox yoxi Domingos Simões Pereira du bouger mètre tant que ñu ngi yox yoxi PAGC du bouger mètre pourquoi parce que dañuy yàgg am ay avantages ay privilèges ci réew ma yàgg euh, tissé seen seen i relation te teg seen i réseau di def seen i trafic affaiblir bi di doxal ñoom li ñu war a doxal mu leen muy neex ci ñoom lool léegi nag loolu yëpp bëgguñu ko perte tey te bëgguñu également ñuy ñu liñ ñu ñu liñ bat la ñu nekk woon <laughs> waaw dégg moo mën a am ay poursuite loolu yëpp la ñuy ragal moo tax dañuy na di déstabiliser maanaam nanguwuñu victoire u Embalo dañuy jàpp ni ñoom Embalo gañewul nanguwuñu donc ñoom Ramnatu te malheureusement nag malheureusement dañu jiite assemblée ñoom ñoom majoritaire au niveau de l' nationale. Mhm. loolu aussi problème problème la <laughs> waaw loolu problème la je pense que il faut que ñu réglé ko te CEDEAO il faut mu ferme mais ci biir ferme boobu nag il faut muy jéem a naxante ak PAGC parce que force politique la boo xam ne aussi dafa am doole ba léegi en Guinée-Bissau donte dafa perte élection. alors bu ñu accusé président Macky Sall ingérence loolu yow Sénégal defu fa ingérence euh, Guinée-Bissau moom Sénégal defu fa ingérence def ko Gambie parce que Sénégal maandu na ba nga xamante ne élection yi jaar ci yoon ñëpp xam ne élection yi jaar ci yoon am ko gañ am ko perte loolu mooy situation bi léegi nag kii def def bi euh, leader Guinée Bissau yëpp ku amul ku ci dul ñëw Dakar Domingo Simes Pereira moo la gën a xam sax boo matul riu Dakar yi day day lay làkk français xam na bu baax Dakar temps yi muy joteek ak Bachirou Dia 2015 euh, euh, président Wade di nommé di Bachirou Dia place am dax ko moom mu mer dafa ñëw Dakar la jëkk a ñëw président Macky Sall def médiation kon euh, mais xam nañ bu baax kuy président Macky Sall lan mooy problème bi pa c'est que Umbalo dafa gën a ne xaritoo ak président Macky Sall te Macky Sall mënatu mënul xaritoo lu dul kii CEDEAO àndal te CEDEAO actuellement Umbalo la àndal <laughs> loolu mooy wax ji COSEDAO Umbalo la àndal mbokk Macky Sall aussi Umbalo la àndal donc loolu moo naqari euh, Domingo Chemins mooy muy accusé président Macky Sall mais Sénégal deful benn forme ingérence du ingérence politique du ingérence militaire ci situation bi nekk en Guinée-Bissau mais su ma la déggee dafay mel ni bu CEDEAO roccee loxoom Umbalo dootul mën a jiite réew moomu donte xëy na mi ngi jéem a wone dëgër ba ne dimanche dina am gouvernement te lundi gouvernement bi yëpp dinañu xëyee liggéey bu CEDEAO bi rocceeku rek <laughs> jënd bi saawa moom loolu mooy d'ailleurs loolu mooy CEDEAO CEDEAO mënu ko jógee ñu nga far yaa nga fa gars yi ngi dafa cher ça coûte cher à la dafa mais ba fa CEDEAO génnee rek ñu reyante seen biir donc li ñu obligé mooy maître bi CEDEAO armée bi am lu mu ragal parce que armée bi moom général bi nee na dootuñu dugg ci politique nee nañ dootuñu sax dugg ci ñoom loolu wax nañ ko bu yàgg avant élection yi mais nag wuurul comme dañoo am ay réseau ci biir armée bi. Mm. waa PAG te euh, ci wàllu biir police aussi sécurité euh, intérieure police gendarmerie ah il faut que CEDEAO méfie wu bu baax baax baax ci situation boobu. Mm. donc jàppale bu baax Umbalo mu mën a taxaw. comme ni ñu defalee président Gambie bi rek euh, jàppale ko. mu mën a taxaw parce que mm. waaw bu dul loolu du taxaw. taxaw bi moom il faut mu wane. Euh, c'était kii chef d'État jikko chef d'État mhm. commencé positionné wu wane boppam dëgg-dëgg hein commencé liggéey liggéeyam bañ bañ leen saale parce que euh, en Guinée bi ça c'est très compliqué mhm. euh, Domingo Chimane dafa am expérience d'État te dafa am aussi ay chef d'État étranger yu ko jàppale aussi mhm. dama koy fàtte wax <laughs> mais dafa am ay chef d'État étranger ku mel ni Alpha ak ñooñu mais dañu Domingo Chimane voilà lañ gën a faale <laughs> waaw waaw. d'accord loolu aussi mun na indil euh, jafe-jafe kon umbaalaw. waaw effectivement mën na andi jafe-jafe umbaalaw parce que umbaalaw dafa mel ni Alpha Condé safa eh, ñoom ñaar safante wuñu noonu. Hmm. Euh, donc euh, umbaalaw laqatu ci ginnaaw Macky Sall Domingo laqatu ci ginnaaw ku mel ni Alpha Condé ñooñu aussi dañ dañu am ay moyens di jàpp di ko jàppale ainsi de suite di jàppale également opposition Bissau Guinéenne te loolu aussi day indi crise hmm. day indi problème day tax crise bi gën a yaatu mais dans tous les cas daal man jàpp naa ni CEDEAO moo gën a wane war a mën a wane fermeté ci situation bi pour que ñu mën a ci loolu parce que depuis deux mille quinze Guinée-Bissau mu situation boo xam ne du ñu voté sax ci fa hmm. assemblée bi lu daje te gars yi un ñu daw yóbbu seen i doom ak seen la soxna laxatu ñu ci ambassade yi tubaab yi. parce que loolu sax am d'ailleurs fi ñu toll nii. waaw loolu loolu moom loolu sax boobu habitude la fa moom dafa yàgg hmm. habitude la boo xam ni. boo gisul loo xam rek da ngay daaw jóge sa dem ci benn ambassade na bëgg foofu. Mm. yóbbu say njaboot parce que sinon boo ko deful wóorul. Mm. dañuy xaar ñu fekk la sa kër rey la wala yu demee noonu <laughs> waaw. Mm. loolu la nit ñi di ragal. ñàkk tax situation la bu xaw compliqué. ñàkk daal ci réew moomu Sénégal aussi dina ko yëg bu baax. waaw waaw Sénégal daf koy yëg effectivement Sénégal réew la moo xam ne xam ne dèjà ñu ngi frontière au niveau de la. la frontière en en Guinée-Bissau. Mm. Euh, am nañ ay même population yi Mancagne ak Mandiack yi en Casamance même population Mancagne Mandiack aussi en Guinée-Bissau ñëpp ay parents lañ am na sax mboomatul ñoom bari na si ñu yor ay double nationalité et mm. autres <laughs> waaw loolu waaw loolu moom am na c'est une réalité. Mm. donc euh, lu am fële rek day am fii c'est comme Guinée Conakry aussi entre pël yi euh, mais damay fàttali d'ailleurs Umbalo pël la donc ño ñoo falu au niveau de la Guinée-Bissau. Mm-hmm. et si aussi musulman donc ñoom ñoo falu Euh, mais en Guinée Conakry c'est très compliqué foofu pour pël lu am foofu rek effectivement day am jógee sax wàcc Conakry gi nga tudd léegi. Euh, foofu itam euh, xëy na dal mi ngi fay waaj a tuxu ndax kii di président Alpha Condé njoxt nañu ne ñetteelu mandat la bëgg wut donte waxoon na ci ñaar lay yem même si aussi dàq na référendum bi ba ñaari ayu bés opposition moom nee nañu nañu gën a taral manifestation yi ëllëgu moom a réew bu yëf yi demee nii itam noo ko gisee. waaw dafa compliqué. ci Guinée fële Guinée Conakry yi tamit wax dëgg yàlla parce que ñaar fukki nit ak juróom-ñeent faatu nañ ci manifestation yi contre troisième mandat bu président Alpha Condé Alpha Condé nag wax ne day def troisième mandat mais ni mu doxalee moo teyal xel maanaam moom nee day def référendum pour changer constitution bi alors constitution bi dafa verrouiller ñaari mandat yi mënatoo ko modifier dafa verrouiller li nga mën a def rek mooy changer constitution boo changer constitution bi rek mën nga changer Euh, Alpha Condé dafa bëgg def troisième mandat moo tax mu bëgg def référendum changé constitution. natt ko ba mu yem si moom natt ko ba mu yem si moom. léegi nag communauté dafa am problème danaan mais est ce que nan ngay sanctionné nit koo xam day def référendum parce que référendum dafa légal. waaw mun peuple guinéen waaw bu peuple guinéen ni ni dañuy voté oui pour la pour la constitution mais loolu lool peuple guinéen guinéen est e mais problème bi mooy leen mooy fichier électoral ba. Hmm. fichier ba ñuy war a voté boobu mooy problème. parce que OIF mooy organisation internationale de la francophonie ñoom ñoo doon ñooy yoroon garanti audit bi ak autorité bi di waxtaan ci fichier bi mais ñoom jàpp nañu ni am na ñaari mi yi nit ba ci juróomi juróomi téeméeri junni euh, yi xamante ni leerul seen situation daal ni ñu ngi gisee ñii dañoo faatu ñii kenn amul fu ñu dëkk ak yooyu donc leerul ci waa OIF ñoom ñu retiré wu di processus daal dañ génn ci seen loxo carrément euh, bi ko CEDEAO yëgee CEDEAO aussi euh, tey ci processus Union africaine génn ci loxoom teewul président africain yi nga xamante ñoo bëggoon ñëw Guinée semaine passée pour waxtaan ak Alpha Condé Alpha Condé nangu leen recevoir ñoom ñoom tam ñu gën a euh, sonné nag Condé ni kii kat dafa mel ni bëggul affaire yi leer référendum bi mën na ko organiser bu ko defee mais référendum na leer na tey fichier wu na nag mooy problème bi. dañu ne ba ci biir yi bari ama ñu envoyé waat waa CEDEAO envoyé waat Condé ay généraux ay waa ay ay médiateurs hmm. ñooñu convaincre que mu renoncer pour deux deux semaines ni léegi dafay reporter euh, référendum bi euh, ak législative bi parce que daleen couplé ñoom ñaar da koy reporter pour deux semaines loolu moo di report bi hmm. mais situation bi bi mu amee ba léegi bi ko euh, waa FNDC maanaam fa le front national de défense de la constitution bi nga xamante ni ñi ñooy parti comme parti Sidibé Diallo ci Cellou Diallo mu nga fa mais aussi Sidya Touré ñoom ñëpp ñu ngi ci biir front boobu ak waa société civile ñu ngi def ay manifestations chaque mardi sollu xonq mm. euh, di manifester dans les rues de Conakry ba mu am vingt neuf morts ñoom nag nee ñi du ñu reculer même li mu li mu wax ni day day day reporté pour de semaines bëgguñu ko na bàyyi carrément projet référendum bi bu bu bu pouvoir bu deuxième mandat jeexee mu dem yoonam ñaanal leen ñu mën a fal seen président ñoom loolu lañ bëgg. ndax da lay wóor na ko defee mooy gàddu ndam. waaw day gàddu ndam gi ndax Guinée na mu bindoo la xam nga Guinée dafa bindoo noo xamante nii actuellement euh, dafa ay yeneen e, onze ethnies nga fa ci biir onze ethnies yi pël yi benn ethnie la or ñu si bëri dañuy euh, yeneen ethnies yi dañuy dañuy dañuy far ñem dañuy dajaloo ñaare contre les pël parce que dañu ne dañuy wax ni euh, pël yi ñoo yor le pouvoir économique te bu ñu leen bàyyee aussi ñu yoraat le donc boo xoolee euh, day diviser wu en trois schématiquement malinke yi fii pël yi fii forestier yi fii donc ma euh, pël yi dañuy voté pël malinke yi voté euh, malinke forestier yenn saa ñu voté pël mais li ci ëpp malinke la ñuy voté donc boo xoolee réalité bi kon de xam na ni dans tous les cas deux tiers de l'électorat maanaam boo ko xaajoon ñett ñaar bi ñoom moom toujours mën nañ ko faral contre contre benn benn bi kon euh, nga xam ne moo nekk pël yi donc boo xoolee ñaare moom dañoo koy wóor ni am na nu muy demee day gagné les élections. day gagné référendum ba ci ñuy njort. voilà day gagné référendum ba boobutu ko présidentiel mu ñëw mu gañawaat moom xam na loolu <laughs> donc loolu mooy situation bi te ñii aussi moom la ñuy bañ. Hmm. Euh, du ay pël rek ñoo nekk ci FNDC effectivement Sidya mu ngi ci ak xëy na ñeneen membre la société civile mais am na opposant Guinée yoo xam ne nekkuñu ci FNDC man damay jël suñu xarit Idriss Chérif. nga xam ne ñëw na réew mi fan yi seet si ñu euh, mu nga France avec des di di discuter ak l'autorité française est-ce que France nekkul moom itam di xool est-ce que duñu jël Idriss Chérif jéem ko imposer en Guinée pour jéem ko fal foofu moom parce que moom homme d'équilibre la dafa nekk ci diggante opposition nekk ak pouvoir bi nekkul fii nekkul faa <laughs> donc yooyu yëpp daal discussion yi mu ngi am non seulement au sein de la CEDEAO mais aussi au niveau international mm. au niveau de la France ñu xool nan la ñuy génne ci crise boobu. jërëjëf Assane Samb ñu ngi lay gërëm ah, fàttali ni yaay euh, jiital euh, réew mi quotidien nekk itam analyste politique amoon nañu mbégte dalal la ci matinalu réew mi FM. jërëjëf Fatou on est ensemble bonne continuation. merci beaucoup Assane jërëjëf. merci.